taf taf amoon kaddu ndogalam ci la ñëpp daan wéyee kenn daawul fooyee baatam di ko café billaay dee moo mën a soppi diggante falak foolee gaaw ana kay nga sunu baay dee bañ koy napp nappee teg fi gune ko tuuti naa di dee rek wooyee baay fii naa fi gàddaay uti làqukaay feneen fu ma amee noflaay ndax bëggatuma sax seen xëti cuuraay léeg-léeg samay rekk daw wéeru sama kaw bënd seen bët di jooy samay morom naan ma booy danga nooy looloo tax sa yaay ak gune gu tuuti xaaja guddi dootuma mën a nelaw di dégg ay yuuxu bukki su ma nam nañ sama baay ubbi almooram palaasam kaalaak sama door barakis foto jàkk yi dafa dama daan gis sooroor yëpp soppeeku doon ay John Ravour mama daf daf nooni noon ci Gaza Hong Kong waccanoo xel war naa daw suba ba jant soo ku mës a jur mës a boot bul topp sa banaxu ba kenn ba lor sa njaboot taf taf nooni noon bil jaxu nit ñi di ma reetaan meñ sama melokaan ma dëkk ci ba daal di koy tàmm daw dugg biir néegam gis saa waay bàyyeeku ci kaw lalam teg ay sàngaraam tàmbalee xelli kaasam su ma kaasee meer fas kanamam damay yeewu gis kër gi jaxasoo sama journal affiché ma daan collectionné saa su ne dagga teg di seen ay tontu vert dem laa ji meer mu di ma tegal ay waxu ko daan sasaret di ma sàkken mais di dem mu xel ma te guerre yàlla yàlla benn bés mën ne tëll ñëw fekk muy jóor sama yaay ay ceinture mbëkkal ko miir ma faq sama xiir di koy kër gi di riir kontaan ba yaa am yaay doxe ma gannaaw xañ ma ko di cuwaat sama bopp toj darañ ba sang ma ma supp njalañ te si naan ba nanga fiir bu nekk ko tuuti gi ngay bañ mu ne sa baay ci moom laa mi yop Bill Diakhou ODB King FM ku ma sa njur ma sa boot bul topp sa bànneexu ba kenn ba sa njaboot ku sànni te jamoo daa fekk diiroo ah yàkkamti ngoon jot mu poor foor takk ay chaîne or wat oto bu di nar a yóbbu école jël bu ko romb bu tëll nga féetee boor di jaay boos sama yaay di tibb di ko jox muy noos fàtt suñu argent de poche xelam di soox léegi bu ñuy di jaagar jaagari napp sigaretam di jëroog iri ci yàlla ci yàlla dimbali ma nga dekkil sama bàyyi mu xool ne xew ci kër gi àddunay dox xelam di soox bu ñuy jàng dañuy dox coono bi ñuy def ci yoon bi tax na bu ñu duggee classe lu ñu dugg fett ci def maas yaay balaa moo jub dix heures jot maay bu ñu di sang ragg xale yi ba ñu mat léeg-léeg ma daw kuuru mat neuf heures jot ma am séance naat nit jàngi baleen fa ndaw ndax dañu xasaw maître ndaw nan kumba ajarama yéen xanaa amal yi yaay seen bopp yi ténim yi seen lancé santé yi seen gémmiñ ñu xëy ñi ay ca door yop 99 hip hop Sénégal fàttaliku Bil Diakhou ay ay ay on est bii bii bul topp sa ba kenn ba lor sa njaboot alors Bill ça fait super plaisir ah, dégluwaat titre bi lu tax ma choisir ñu tàmbaleek euh, ce titre bi nga xamante ne yaa ngi ko defoon ak taf taf euh, bu noonu noonu. Mhm. Euh, c'est que c'est un ak Biba. ak Biba bu Arif exactement. Euh, c'est vraiment benn époque boo xamante ne Bill peut-être am na ay auditeurs ak ay auditrices wala ay artistes yoo xamante ne buñ ko dégloo ça leur rappelle énormément de souvenirs parce que c'était une époque boo xamante ne gars yi dañ doon expérimenter ci la ñu nekkoon au bal du ciment au début du rap. Mhm. rap galsen ak rap wolof gars yi di inspiré wu di jéem a ut. ay yoon gars yi nekkoon acharné ma bëggoon rek nga rappeler un petit peu ñi nga xamante ne mooy auditeurs yi ñuy déglu euh, époque bi nu mu fa demee woon ak nan nga connecté woon a gars yi sa inspiration ak ñëwaat un petit peu ci sa parcours kii Bill jaxu parce que y beaucoup de gens tam yoo xamante ne ils maîtrisent encore bu baax kan mooy Bill Diakhou ma bëggoon rek nga joxaat gars yi un petit peu parcours bi s'il te plaît Bill. waaw euh, Bill Diakhou mu ngi démarrer rap euh, vers les années quatre-vingt-dix. ok voilà euh, temps boobu ñun ay booy lañ woon ñu ngi doon topp euh, Ngor Diagne temps boobu dafa am benn club moo amoon ci dakaar muy Dakar City Breakers. voilà Dakar City Breakers c' était à l' époque nag dafa amoon ay boîte yu fi amoon. muy Galaxy Night Aldo Tiffany's <laughs> ak euh, ak. Sayel. Sayel Sunset Sayel. waaw voilà temps boobu dañ daan ñëw dem RK bu ñu demee mu am concours break dance. ñu dugg. temps boobu dafa amoon benn film bu tuddoon euh, Breakthrough 84. ok daan daw am benn waay bu tëddoon Ezen. bu uh-huh. nekkoon ci biir. bu duggee ci géew bi dafay fecc def ay affaires yu extraordinaire uh-huh. léegi nag euh, culture urbaine commencé di dugg biir Sénégal mu amoon danse contemporaine uh-huh. amoon amoon mu mudra africa léegi gars yi révolutionné affaire bi commencé di toppandoo américain yi ci break dance boobu uh-huh. xam nga c'était à l'époque vers les années 84 85 86 voilà ñun ci loolu la ñu la ñu la ñu tàmbalee en ma njëkk dégg benn waay bu tudd Amenoufis Amenoufis mu ngi tudd Ali ga ok papam ak suma papa ñoo bokk ndey ak baay. voilà hmm. léegi ma gis ko muy rap. Hmm. naan mon nom est Jay-Z oh, je viens de Paris M to Mac to Crap to Bad <laughs> genre yooyu après j'ai j'ai aimé le de de euh, bi muy rappé ak rimi yi. Uh-huh. ca temps boobu ñuy dem di commencer di fréquenter benn boit bu tudd César Palace. ok bi ñuy commencer di fréquenter César Palace. Mm-hmm. benn jour benn copain ñëw gaare temps boobu euh, kii moo gënoon nekk à la mode du woon du woon scooter du woon kii mais si moo nekk si voilà siao <laughs> double variation voilà gars bi ñu ñëwee gaare nag mu ne ma mais je bi dama demoon ci benn rap mhm. ma ne ko rap bi fan la mu ne ma école Médine la woon ki ko organiser woon mu ngi tudd Aziz Koulibaly grand Aziz Koulibaly Aziz Koulibaly. ndeysaan léegi ma ne ko mais man maa ngi fa woon mu ne ma mais gis nga ñi doon rap ma ne ko waa am na benn gaan bu am yaram nii bu doon rap ak euh, kii mu ne ma mu ne boobu temps boobu benn euh, kii du ma wax tour mais musique rek laay wax. waaw am na tour. Uh-huh. mais musique moo ci euh, tegu moo ko organisé woon. waaw y avait Aziz ñu doon def nag tour des écoles. Mhm. temps boobu. on n'avait pas trop d'informations ci ci ci ci musique culture urbaine bi ci laa ñëw nag fekk waa ji téye micro di rap moom tamit à part Ali uh-huh. kooku laa gisaat muy rap mu ñu naan ko DJ Awadi ndeysaan mu téye micro bi di rap ba naan c'est DJ Awadi qui le dit man loolu rek laa ci jàppoon c'est DJ Awadi qui le dit une deux trois c'est DJ Awadi qui le dit voilà xam nga ça m'a fait plaisir de d'écouter ce style. Mhm. après ma ne mais pourquoi pas aller euh, faire du rap. léegi ci laa jël benn sound boo xam ni benn waay bu tuddoon euh, euh, kii kii Notros bi. Notorious B.I.G. Notorious B.I.G. Biggie Small parce que époque Tupac la woon. époque Tupac euh, mooy NWA. exactly léegi nag euh, ma dem kër taf taf noonu noonu. non mhm. temps boobu taf taf noonu noonu il était trop rock and roll. Mhm. ay Guns N' Roses la daan déglu. il était en avance il était euh, non il est en avance ci musique. macha allah cet cet homme xam nga musique doo ay trop mbaa nga cuune trop. baaxul <laughs> yaa ngi dégg. bu baax taf ma montré ne ma booy xoolal déglu groupe de rock bi ma koy dugg affaire bi neex ma ne ko kaay ma déglu loolu benn affaire mu ne ma lan ma tegal ko CD boo xam ni NWA la. Mhm. yaa ngi dégg. waaw Easy A. waaw Easy A mhm. ak ak ak ak ak groupe yu bëri gars yi di ci rap ya am benn waay boo xam ni comme Snoop Doggy Dogg bu tay bi waaw amoon na ko xam ne Eazy-E la tuddoon moo doon rabee comme Snoop Doggy Dogg il est mort par le sida c'est oh. dommage c'est dommage yaa ngi dégg uh-huh. ak Dr Dre ak beaucoup de rappeurs yoo xamoon ñoom ñoo nekkoon ci kii ak Kool Herc mm-hmm. affaire yi neexoon ma quoi et c'était vraiment vraiment euh, révolution hip hop la woon mu nekkoon lu bees wala lu bees ay Public Enemy yaa ngi dégg ma koy déglu nag bu ma koy déglu nag damay nëbbatu parce que sama yaay na voulait elle elle voulait même pas may déglu genre musique boobu parce que xamul lu ñuy wax. Mhm. déjà musique bi c'était trop agressif. moom xamul lu ñuy wax day nag bu may bu may buy ñëw rek. Uh-huh. ma coupé euh, affaire bi <laughs> waaw te moom moo ma daan moo ma jëndaloon magnétophone bi kat. mais bi bu bu ma demee enregistré affaire yi ñu enregistré ma ko euh, détail détail détail bu ma ñëwee bu commencé daw mu dugg si ma dégg tànkam rek damay coupé. cassette bi voilà di ci jàng. ndeysaan di ci jàng ba. Mhm. am ci fans. Mhm. moom laa lay wax Notorious B.I.G. ok mu nekk sama fans style bi muy rabee d' accord c' est c' était du gangsta rap. Mhm. mais du gangsta bi moo ma intéressé woon. mais feeling musical bien m'a intéressé. Son univers. Son ouais. univers. Parce que à l'époque, je parlais pas l'anglais. Je connaissais pas l'anglais. Okay. Je ne pas dire ben mot en anglais okay. li muy wax. Uh kon lan moom may war a intéressé ci lolu, le dul feeling musical bi. Les rimes ni mu don rimé, uh-huh. ni mu deggo woon ci buy wax uh-huh. ak ak ak dégagement bi, expression corporelle bi mu doon dégager, lolu moma intéressé won au début. OK. Aduna di dox. ñuy màggandoo hip hop. ci uh-huh. Sénégal. Uh-huh. ma jékki-jékki dégg ñu ne am na benn group bu tudd Yatfu. Yatfu waaw. Mr Jojo. Jojo. ak euh, nu mu tuddati euh, Armand Big D. Armand Big D. ak euh, Gofu Gofu. voilà y avait pas l'autre là Dragon bokk ci après la ñëw bi Big D bàyyee. voilà uh-huh. après. mu am Sorano benn kii bu fa amoon benn spectacle bu fa amoon. waaw c'était eux. ndekete ñoom ñoo ko organisé woon entrée bi cent francs la woon. Mhm. ma téeméer téeméer temps boobu maa ngi dëkk rue Vincent Nglam Abdou Karim Bourgi gàlle sama gàlle pap ma jóge fa dox ba euh, Sorano ñëw fay téeméer dugg seetaan ma ne leen voilà man man musique bii daal man lii mooy sama musique quoi man lii moo ma neex mooy mooy la nga xam ne moom laa xam moom laa fekk ci sama jamono àndandoo moom màggandoog moom uh-huh. ca temps boobu uh-huh. gis nga Bill Jaxu li ko defar Bill Diakhou jógul rek rap. Mhm. Bill jaxu dafa rampe avant muy rap. Mhm. comme époque boobu ñu bëri en comme époque boobu ñu bëri. man mii pour doon par exemple déplacé wu dama doon dox. peut-être non mais au début on se connaît. da dox deux heures de temps balaa ngay yegg concert bi fi mu. war a am yow yow yow boo doon ñëw. Mhm. yow au début boo doon ñëw euh, fële nu mu tudd euh, Kermesse cathédrale. waaw <laughs> jël micro bi. mais loolu mu ngi mel ni tey ci man. ndeysaan te c'est vers les années quatre vingt dix quatre vingt douze quatre vingt treize. Eh, mais carrément. tu as vu yow sa man moo yar man. dëgg donc man xam naa la bu baax. te yow xamoo loolu. <laughs> tu as compris. dëgg la on a grandi ensemble. gis nga Ndakaaru. Uh-huh. benn bopp la. jeunes yëpp a xamante woon jeunes yi doon yëngatu yëpp daan génn. Mhm. benn génn moo fi amoon. Mhm. boo génnee yaa ngi dem Tiffany club. boo génnul Tiffany club yaa ngi dem Aldo. boo demul Aldo yaa ngi dem Galaxy Night. Obox Obox. Galaxy Night moo nekkoon euh, studio mil fu mu nekkoon à l'époque vers virage Yoff effectivement ki fa nekkoon DJ tudd Victor Baz moom sax moo defar far boîte bi. yaa ngi may fàttali ay affaire yu. y avait DJ Eduardo y avait Didier Makhtar. oh El Niño. yaa ngi dégg. au fait ñoom ñoom ñooñu ñooñu ñoo wanele rab bi ci ci Sénégal. Mhm. am na benn jour ma taxaw déggati est venu dugg jël micro bi ji man nekkoon ci euh, console bi. Mhm. déggati rap rap rap tuuti ma gis benn booy bu nekk ci micro bi di rap rap bu xaat olof yu nice. Mhm. ma tourné ñu ne ma kii Ndongo di la tudd. après ma ñëw dëkk si Colobane ci laa xam ndongo daara ji. ndeysaan. tuuti tuuti Médina Fass Grand Dakar yooyu benn town la. Mhm. ñëpp xamante jeunes yi ñëngu ci culture rap. wala musique ñëpp xamante boo xoolee sax groupe yëpp xamante parce que ay ceddo ñoo fi amoon. yaa ngi dégg ay tijaan jëf jël. ci temps boobu ci côté mbalax ak yooyu. est-ce que yaa ngi comprendre. mais bu baax. <laughs> donc c'est est c'est c'est que industrie musicale Sénégal dafa yàgg. du mhm. tey. Mhm. à part grand yi. Mhm. seen époque. Mhm. ñun suñu époque bi ñu commencé ñun. Mhm. loolu dafa yàgg. te dañ koo xam dañ koo maîtriser. moo tax sound bi may naan ci Gézatu Night la tàmbalee break juddu émission Ambroise Gomis. dago Sunlight ñu du fa dugg. di ko fight. ak Los Joxos. Los Labos. Bambata Boys Black Boys MC. di roy ba dàq ñoo ko sooke. Mbacke Jum. King Kool and Allen. Aminu Indochine Ngor Diagne Doudou Nia uh-huh. New Edition uh-huh. Brigitte Free Boy Free Girl <laughs> DJ You Frère euh, DJ Bonus Dakar Tonight Ben Mamina Diémé Victor Bass ba Galaxy Dégol Chez Mika MC Lida MC Lida <laughs> est-ce que yaa ngi enjoy du jeex du jeex du jeex du <laughs> jeex euh, man rap kër la ci man dëkk mm-hmm. la ci man man mm-hmm. rap nekk la ci man mm-hmm. parce dama cee dëkk Mm-hmm. di ci dox di ci fanaan donc je comprends très bien le rap moo tax euh, bu ma déggee benn style bu ma ne la du dem rek du dem mm-hmm. bu ma déggee benn rap rap bu ma ne la non du jàll rek du jàll xam nga lu tax lu tax parce que kuy denc ci jàjj na nga dégg dénk moor max mm-hmm. parce que ñun on connaît beaucoup de choses ci hip hop dañ cee yéwén man je suis pas un old school. mais man on peut m'appeler un old new school. old new school. parce que man je suis sorti en l'an 2000. 99 laa génn. effectivement. ak léegi 18 ans la. tout à fait. 99 laa njëkk teg mooy sound bi ñu doon reprendre mooy maama noonu. tout à fait tout à fait. moo tax ma tàmbalee loolu ma teg miraas. Uh-huh. sénégalais dañoo bëggoon télévision te benn télé moo fi amoon muy RTS. képp groupe bi fa njëkk ñëw di rap hmm. groupe bi njëkk dugg bi senegal di rap mu ngi tudd Speak Sonic hmm. te li tax ñu rap hmm. moom mooy dafa amoon méga concert boo xam ni lutte contre l'apartheid Mandela c'est stade Demba Diop ok yi ñëw Speak Sonic groupe anglais la woon sax du woon groupe américain Aziz yi di leen interview à la rajo temps boobu pour nga am rap a cent pour cent da sonn tu es obligé nga déglu rajo Gambie mbaa nga déglu Malick Boulibaly station RFI. ndeysaan wax nga dëgg chaque samedi. <laughs> donc culture hip hop fi mu jógee laa lay wax tuuti tuuti tuuti. bi PBS amee. Uh-huh. tuuti tuuti tuuti daara ji meññ. Uh-huh. mais temps boobu amoon na ay groupe underground. Mhm. yu tudd Baye Falkandang Strong bi. mais gars yi dañ doon fecc sax avant ñuy. rap avant ñuy rap dañ daan fecc. voilà parce que Fada Freddy danseur la woon. c'est Longo di danseur la woon. même Alaaji Manda danseur la woon même waa P Frost. waa P Frost c'était des danseurs parce que Cool Coxy c'est un grand breaker. Matador. boo dégloo ci biir sound boobu manaan maa ngi mbay maa ngi béggee mbay bu BMG. Mhm. di béggee déggee tii. Mhm. Seydina Muhammad dañ ko xam mhm. dañu xam fi hip hop bi jóge ak yan coin la jóge ak naka lañ def ba hip hop taxaw mais yow Bill est-ce que mos nga ci fecc bi wala joto jaar ci fecc bi man man je faisais partie l'un des meilleurs breakers du Sénégal. au début avant ngay commencer. avant may commencer rap. man bokkoon naa ñi dàqoon breakdance si Sénégal parce que man man rek fi naan def ay triple saut. <laughs> Grand Moulin salto yi <laughs> salto yi <laughs> léegi mënatoo loolu de. non mais jinne lu mu màgget ma de màgget des na rajaxu yu mën a jommal nit. ok est-ce que comprendre nga li may wax bu baax a baax a baax a baax. tuuti tuuti daara ji génn tuuti tuuti. Euh, jant bi jant groupe jant bi. waaw. Euh, xurmbege poosé. ñëw yaa ngi dégg <laughs> ah, ak benn groupe bu tudd Kancholi. ndeysaan ñuy waxati am na benn groupe bu tudd dëkkoon Parcelles Assainies euh, boo xam ne bu ñuy yéeg sur seen ay yaxu bopp ay boppu tête de mort lañ daan kii ay yax lañ daan takk moo daan nekk seen chaîne. Uh-huh. ñu sol ay mayloos y show MC yeneen booy laa xamatul seen tur parce que dafa yàgg oui oui yaa ngi dégg mhm. y avait Payazou mhm, mhm. moom mooy ay euh, euh, ay alien zig bi ngay dégg ndeysaan ndeysaan c'est des old school ma ci profité di rendre hommage ñi nga xamante ne ñëpp jot nañ génn ci diggante bi parce que booy wax loolu sama xel dafa ñëw léegi ci mm. ay Las MC. Las MC on a perdu beaucoup de gens ci diggante bi. yoo xam ne fi Pakoti euh, ki nekkoon PBS euh, Pa Baye Souley keneen ki doon fecc. Euh, y avait Jekka. waaw xam nga y a énormément de gens qu'on a perdu. y avait Bulle de Sam. seen kii la woon. Di Black gaañuwul mais gisatuñ ko. Di Black on le voit plus. voilà beaucoup beaucoup beaucoup d'artistes noonu. xam nga hip hop Sénégal dafa dafa dafa yàgg dafa yàgg tumuranke mhm. les jeunes ont aimé. Mhm. mais c'est dommage que amuñu coup de main. Mhm. jàppale wuñu leen. Mhm. booy essayé nañ teg culture bi. ni ñu ko war a defee. ils ont fréquenté les milieux culturels. ils ont allé euh, au centre culturel français jouer là-bas. montrer seen art. Mais c'est dommage. Mais, bille la faute à qui aujourd'hui Par exemple, à euh, Gabal Matouti, quand je vois quelqu'un, Boumelniyo, Bill Jahou, euh, bi ma expliqué ne damay def émission bi ak yow ak Daddy Bibson ñu bëri ay mag surtout. Mhm. Euh, première chose bi ñu ma laaj dañ ma ne laajal Bill Diakhou. Mhm. fan la nekkoon ba année deux mille dix huit ñu perdre ko de vue fekk moom icône vivante la. parce que comme ni may expliqué on a perdu beaucoup de gens ci diggante bi mais toi on t'a Bill. Oh, waaw man. qu'est-ce qui s'est passé man musuma ba ñu perdre la ba ñu perdre la de vue sa musique jàppatuñ ko bon on sait que yaa ngi ci dëkk bi. mais on n'entend pas les productions on te voit pas par exemple ngay featuring ak yenn boy yu bees yi waaw affaire bon mu jaaxal ñu peut-être est-ce que li ngay wax tu n'es pas fautif ci mm. ñi nga xamante ne mm, man je suis un incompris par rapport sur le euh, sur le sur ce côté-là mm-hmm. ci cest c'est-à-dire parce que man je respecte le hip-hop man mm -hmm. j'aime pas un rappeur qui insulte mm-hmm. bugguma rappeur buy saaga mm-hmm. man bugguma rappeur bu vulgaire man bugguma rappeur buy lekk ay mots yoo xam ni sa papa bu taxawee walla sa yaay bu taxawee du ñu dégg li ngay wax. Mhm. boo nee rappeur nga. Mhm. rap warul yam rekk ci jeunesse. Mhm. ci xale yi. rap dafa war a digg doomu. yaa ngi dégg ci panel bi ñu naan digg doom game. digg doom na digg doomu. na digg <laughs> doomu dafa game la dafa war a digg doomu. dëgg la ñëpp ci war a jot. dëgg parce que mooy meilleur fa Euh, façon de passer les messages. Mhm. C'est une musique du peuple. Voilà, c'est une musique du peuple. Mhm. Le rap, c'est une musique de noble. De la rue. De la rue. street. xam nga street euh, euh, street street game. Mhm. rap du affaire caaxaan. rap du dama bëgg gel damay rap non non. parce que ñun suñu à notre époque du loolu moo ñu enchanté woon ci rap on avait l'amour de chanter le rap. mais boo demee ba benn instant nga gis booy di ci dugal lu ci bokkul. yow doo ci xaj. ndax day am moment boo xam ne xale nga. tu es obligé nga ànd ak fougue jeunesse. mais boo demee ba atteindre yenn age yi. say sa dañuy màgg àndandoog yow. donc tu es obligé de faire du bien. rap bi ngay def na mën yeete. na leer ci nopp nit ñi. na mën a gindi. ndax lu mënta gindi musique bu terewul yeetewul sam papa Ndiaga Mbaye wax na ko nee na baaxul. c'est lu tax ñoom ñu exister te dañuy exister et dañuy exister à jamais. Mhm. lu tax yu Ndour il rest il demeure et il existe te dafay exister encore et encore. lu mhm. tax Omar Pène di exister encore et encore. Mhm. wayeetuñu lu ñu daan way. mais dañoo nekk ba tey. Papa Thione Seck. Baba Maal. tous les grands. mais pourquoi lan moo waral loolu Bob Marley il est mort en 81 n'est-ce pas tout à fait mais Bob Marley n'est pas mort jamais il est là tu l'écoutes il est à côté de toi mhm. da lay jindi li mu daan wax ci Africa lépp dëgg la mhm. loolu mooy musique bu baax donc concrètement yow dañ tu ne te sens pas en phase ak li nga xamante ne actuellement non non jamais je ferai ces genres de featuring mhm. jamais je le ferai Mhm. mais nag boo ñëwee ci man ne ma Bill Diakhou man je suis un rappeur. oui du new style. est-ce que ça existe loolu par exemple ay artistes yu bees yu ñëw seet si la ne la Bill. vraiment les jours euh, dañu bëggoon nga jëm ñu jàppale peut-être suñu son wala nga def. au début poser ñu waaw. au début oui am na tey rappeurs yu fi nekk tey. wóor na yàlla. man jaaxal na ma trop loolu barki Cheikh Ibrahima Fall tey yii. Mhm. maa bind seen texte. Mhm. ñu génnee ko mu cartonné. jox ma kenn par exemple. non xam nga tamit. yooyu kenn du ko wax <laughs> yow beneen école bi nga nekk ko école bi laa nekk te tu veux rester là-bas wax nga dëgg bil te dañu ne dëgg du dee mhm. rab du dee rab du mës a dee jamais ndax rab musique dëgg la Black G nee na rab ba dugg jeel moo moo ma gënal fen ba bëri geel ba bëri geel ba bari geel yeah man tafaani a ah, bismillahi jaam a ah, uh-huh. hip hop mbaa jàmm ngaam uh-huh. ruel mc mbaa jàmm ngeen mm-hmm. ah, a maa fës yéena ma fekk fii si balsàq fas yéene ma yóbbu daaray duniya mm-hmm. mbaatan ngeen sama charia diis naa diisaay boo xam-xam daaj jàpp daaj ba gis di jàpp daaj <laughs> rab il faut nga jàpp daaj jàpp daaj pas naan uh-huh. mais il faut nga am niveau intellectuel sûr et coté c'est pas le rap c'est pas pour n'importe qui on a 3000 rappeurs on a 5000 rappeurs ñaata rappeurs ñoo siiw c'est ça le problème donc il faut rapper à temps il faut respecter les Sénégalais qui euh, qui vous écoutent si tu rapper en français rap en français d'accord mais defal le tout ba nga xam ni français bi ngay rap dina dégg moo ko jaaxal ci yow si tu peux rapper en diago mhm. mais fais-le en naar mhm. mais fais-le mhm. mais bindal na taaru ah mbind day am taar. Mhm. si tu peux rapper en wolof. mais def ko gars yi déglu la. xam ni yow mii kat wolof style nga. <laughs> wala je respecte nongo daara ji. ndeysaan il t'écrit benn benn benn mbind la lay bindal. Ah. pakot yi. Ah. xoola pakot yi xoola pakot yi bind pakot yi. xoola bind yooyu xeetu bind yooyu xoolal. xoola xumaan ah mm-hmm. mm-hmm. Keyti Keyti ndeysaan ah ndeysaan les grands ça c'est des immenses Daddy Bibson Daddy Bibson ay ponkal lañ très engagé tam non ay ponkal lañ billaahi man je les vois haut ñooñ du ñu mës a dee ci sama bët incha allah bu soobee yàlla euh, vingt deux heures vingt une minutes euh, Pour un petit rappel, normalement, on devait avoir Danny Bibson euh, fii ci studio bi ah, mais circonstances oblige dañ ko convoqué woon police donc il n'a pas pu euh, se rendre fii déféré ci émission bi parce que problème de temps la amoon il est sorti que très tard ah, maa ngi remercier bu baax kaay technicien s'il te plaît ma xoolaat un peu message yi général Sarmada Fall ah, mu ngi noonu sur euh, am nañ Khoudia Tall qui est dedans nee na ja ja ja ñu ngi koy bëggee merci également petit Gassama ci www.kingfm.sn euh, sama gars yi boo leen munee partager rek doon na nice torop torop pour gars yi gën a dugg ci live bi ñu gën a am ay vues euh, ça nous ferait plaisir wala ngeen bës un petit j'aime et puis surtout ngeen partager on a Justin Mendy qui est dans la place ce soir aussi euh, Moussa Sène tam mu ngi ci biir place bi Mr Pape Cham Rosso Advice Mr Rosso très très grand rappeur qu'on a reçu mu ngi lay bëggee Bill donc gars on est vraiment désolé mais xam naa ne tout de suite dinaa jël euh, Dali Bibson mu defal ñu un petit point expliquer ñu lu tax mënul woon euh, taxaw fii et puis mu mun a waxaale un peu avec son collègue et confrère bi nga xam ne mooy Bill Diakhou euh, qui est parmi nous et qui est notre invité mais balaa boobu. dañuy seetiwaat tuuti un petit peu euh, baatu Bil Diakhou bi xool un petit peu fan la toll ci vocalise yi il nous a amené une petite surprise benn exclu boo xamante ne génnagul euh, dinañ commence tout de suite mais avant loolu tam dañuy fàttaliku jamono parce que boo amee euh, benn icône wala benn woykat ku mel ni Bil Diakhou il faut vraiment en profiter c'est en streaming en live sur King FM première radio digitale du Sénégal en compagnie d'Oli B aka Gaza Hong Kong King FM. King FM. téemul du mun laajteel allahu àdduna dunia loo nekk ca bañ dee fekk la ca jóg ku fàtte yàlla yàlla fàtte la bala fi ngay yàq nga fàq sa yoonu safara mu négocie koo la bal sax ndax leerub jant ku ko ne jàq seen na am na lu mu làq boo gisee dine jàq maam baam na joxoñ na su gisee gaynde jàq ñun ñëpp yàlla ñu sàq fa bii de nekk mënees su ko dàq xanaa di làmbatu ba ne ko jàq borom daamey Cheikh Ibrahima Fall Babul Muridi borom daam dafa fonkoon suuf sey borom daam ci yàlla lu jiitoo ci teen bu naawul jaxali makam Seydina Ali Gningoy. Seydina Ali Gningoy. seen seex ndigal seene ko seexal. ha wacca. ba waa Daaru Salaam bekki di sarxul leen. ci li leen Bamba set Bamba set rap wolof moo raw mu raw barke Cheikh Ahmadou Bamba odi bi yesaay bi ñoom suñu culture quoi ayt tubaab mënoo ko jaay oto bu rafet tubaab mënoo koo jaay defar yére bu rafet tubaab noo koo jaay defar tubaab dem na ci kaw asamaan fu ne la dem tubaab xam nga lan nga ko mën a jaay culture ndeysaan li mooy sunu cosaan aywa kan moo war a woy borom daa béy bil jaxooy bay faal aboori jaanu laay borom daam borom daam borom daam borom daam borom daa béy woo waa King FM barki maam Cheikh mu dem biro ba ca xam ni maam nga doo maas bilaay yow kabar ki nga kabar ca kër ab ab sëriñ du ko tollanti Bamba mooy góor Cheikh Bamba demoon Gabon ba dem la Minas ba mu ñëwee la galas di maye naas yow galas la nga def taaxi màkka daa yéem yéem yéem aj kaaba ga fàllu daal daa tuubal jaaxu barki maam dafa rëbb ci ay xarak baax mus la tegi waree fam di wax di wéeroo foo ko woo dul yoon mu xëy la gàntooy King FM ci borom ndaam Cheikh Ibrahima Fall Serigne Touba ci yàlla déggalal sa Serigne bul diinal keneen toppal ndigalam bul xool keneen senegaal benn bopp la diine di du ñaar ma ne benn la eh di bëggee waa jàngu bi kenn mënu koo xar ñaar Cheikh Khadim Fall ibnu Serigne Moutala Fall Cheikh Khadim ca Ndakaaru ca ma yàlla falee jébbaloo gën a wóor jébbalu jébbaloo gën a wóor pour les fans du blues rap blues Bill Diakhou the art of storytelling lii laay woowee wolof beat the wolof yeah the rap wolof beat acca mu ngi noonu xam nga dige bor la woon euh, Mr Bill Diakhou waaw euh, fi ñu nekk nii maa ngi nii en direct ak euh, sa invité bi nga xam ne moo waroon nekk ak yow mu di Daddy Bibson le grand le grand Daddy Bibson Bibson yaa ngi en direct ma dalal la nga nuyoo Bill jaxu ak auditeur ak gars yi la doon xaar waaw asalaamaaleykum waaw maa ngi nuyu gars ak auditeur King FM mm-hmm. di wax sama waaj euh, gëj na gëj na gëj naa ko gis. et maa ngi koy nuyu bu baax. dëgg la balaa ci àll balaa boobu nag damay wax onze billahi min shaytaan rajim mm. bismillahi rahmani rahim. Mm-hmm. yow allahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallim. Mm-hmm. waaw yow jërëjëf Baye Niass jaaraama Baye Cheikh Mamour Insa Diop. nga yàgg fi loolu téwér Diop <laughs> donc laa la nuyoo et puis di leen wax ni euh, voilà euh, maa ngi nuyu audi bi nuyu auditeurs yëpp. Euh, di kontaan si bokk si émission bi. Mm-hmm. ok alors Bill euh, rapidement boo mu ne euh, expliquer un petit peu ñi nga xamante ne mooy auditeurs yi ñu doon déglu tey da nga waroon ñëw ñu defoon communication ci émission bi bon à notre grande surprise démb da nga jot benn convocation de la police nationale bu la woo. Euh, pour nga ñëw wuyu si foofu tey donc euh, étant donné que dañ la woo donc forcément da ngay dem wuyu nga daal di dem wuyu euh, moo tax da fa xaw a yàgg ba da nga guddee génn donc du coup mënoo woon jugee Thiès pour ñëw en sachant que demain da nga am sa concert bi nga xamante ne mooy lancement sa dernier album rap ak sa album bi nga xamante ne mooy sa album Ilal Abad bi ngay génnee sa projet double CD. waaw waaw waaw bon yi ñëw jox ñu benn convocation à uh-huh. ñu laaj leen lan moo tax ñuy convoqué ñu ni ñëw leen rek tey. Uh-huh. bon bon ama ban que non man may dem il ma xam lan la ñu ne la ñëw leen tey ma ne ok jox ma waaye jox ma ma signé ma ñëw bon tey bi ma ñëwee foofu. Uh-huh. que <laughs> gars yi nee nañ dafa am benn gaayen boo xam ni nee na man dama ko amal xaalis yaa ay dix ans xaw ma des salaam. <laughs> ay ay ay ay daal ay maanaam ay kàcce bon ma ne ko kan la après il s'est trouvé que benn boy la am nee na daf ma doon fréquenté bu yàgg a yàgg non ay kàcce rek quoi. ok anyway man amu kenn kuy dox si suuf maa mel la. maa ah. mel la kenn buy dox nii. dëgg la. Eh, bon ñu entendre ma man leen loolu du dëgg. Ah. waaye ma dañ doon xool ndax di nga ñëw ndax boo ñëwul woon si kaw seen bi lan lay fekk yóbbu la. donc waaw. yooyu yëpp garaawul après ñu pare génn moo woo sama ñu woo sama avocat mu ñëw toog fekkee affaire yi. Uh-huh. après avocat bi ni ma même le plus nul des procureurs du àtte uh-huh. uh-huh. donc garaawul c' une mani c' était une xam nañ lépp quoi. ok donc euh, bon mais man du ma nekk di waxat parce que xam naa ni amul kenn ku dox si suuf muy Amérique muy Sénégal muy feneen feneen koo xam dëgg la bon ñoo de de mon nom et tout ça mais man allah lundi je vais faire euh, une contre-plainte. Uh-huh. pour euh, pour booy euh, pour loolu. affaire bi mooy que ni euh, voilà damay préparer sama album ils m'ont fait perdre presque ay quinze heures de douze heures temps. I was about to catch up. donc loolu la j' en train de rattraper le temps. ba léegi tax maa ngi baalu justement alors est-ce que événement bi ba léegi demain ça tient toujours comme ni nga ko waxoon di fàttali de gars yi ne euh, nga ko décidé woon def est-ce que événement bi concert dina am demain lieu ba léegi. dina am incha allah incha allah bu soobee yàlla lii concert Baye Niass la concert Sénégal la concert. engagé yooyu le concert u rappeurs yi le concert acteur culturel concert u acteur de la culture urbaine la mhm. ay bëri am na ñoo xam ne jóge nañ Mauritanie laay bi bi nga xam ni sax moo ñu accompagnement commencé ay son mu ngi fi ok ñeneen ñëw alcool sax jóge mhm. am nañu jóge Fuuta ay Kolda fu nekk ay ñëw ñëw donc concert bi mënul ñàkk am mhm. mënul am ok comprendre bien euh, euh, que le concert va, aura lieu, Inch'Allah, à 21h de Djibouti. Mm -hmm. euh, la conférence de presse aura lieu, Inch'Allah, au Palais des Arts, moi, euh, mhm. à Flash Film, mon cadre, à 17h30. Ok. Voilà. ok donc euh, loolu donc euh, et puis même sama invité sama xarit bi Bil Diakhou yaa maa bëggoon ko woo mais après saa gars yi. xaaral ma paas la ko mu wax la benn message rapidement. Bip son. daal eh, eh, mu demee namm naa la meen. <laughs> waaye lu bees ngeen. dara beesu lu dul xeex rek pour Sénégal moomaat boppam. waa gaa loolu la de gis nga euh, gis nga nous vivons dans un monde boo xam ni actuellement nii gis nga dëgg rekk ay dëgg. te et que et fi ngeen jàpp noonu man je suis vraiment fier de toi quand je t'ai vu nga taxaw position askan bi parce que nit ku baax dëgg dëgg dëgg dëgg bul far fenn lu dul faral ci sa askan ndax askan dafa am solo. ñëpp ay xeew yi ba mu des askan askan ça reste et ça demeure à jamais voilà yàlla na la yàlla jàppale demee concert bi incha allah moom dinañ teew def affaire bu extraordinaire ne t'inquiète même pas voilà waaw mais je t'ai appelé mais on n'arrive pas à te joindre euh, ci sa téléphone woo nañ la ba sonn mais mënuñu la jot ci téléphone bi non après on a vite compris quoi dafa nekkoon ci tàngoor nii moo tax Massa ma Massa Bibson we understand man. mais yàlla baax na. man man man je suis fort te kenn dama des découragé ci li ma nekk yoon bi ma nekk. très bien donc ñun daal moo ñu ñor Sénégal moo ñu moo ñu bëgg ba ñu bàyyi li ñuy def Amérique. Mhm. Euh, ba bàyyi li ñuy def foofu nga xam ne fii fay ñu dara ñun foofu dañ ñu mais fii fay ñu ñu ñëw fii di wax. ñu mhm. a bien Sénégal moo ñu ñor. Mhm. waaw. mu waxal ma ngi lay dégg mu ngi lay dégg euh, boo gisee Sénégal. <laughs> boo gisee ma créé euh, mouvement OPP opinion publique positive. waaw. bëgg a récupérer maire des Parcelles Assainies <laughs> c'est parce que. incha allah léegi gars yi xam nga ni ñuy def dadi Bibson ak Bill Diakhou affaire bi comme tey demee na nii mais mm. Bibson maa ngi la ko doon expliquer dañuy bàyyi concert bi dex demain mm-hmm. on va tout faire pour semaine prochaine jéem a tegaat programme bi parce que public non kenn du la yóbbu kenn du la yóbbu kenn du la yóbbu man gars yi pëñ Uh-huh. Ah, seen seen ngëm dafa des. parce que nga état bu fekkee ngëm dafa des ngëmu état bu fekkee uh-huh. du dem fenn. mais semaine prochaine semaine prochaine uh, Dari Bibson. gis nga état bi ñi fi nekk ay ngaaka lañ. semaine ñoom ay régions yoo xam nekk lañ yaroo donc ñoom dañu waroon indi système de bi nekk dëkk semaine prochaine dinañ waxtaanaat ci loolu bu baax Bibson et puis jéem a def suñu émission. waaw. suba la affaire bi ah. non dañuy teew. incha allah ne tey pas bu soobee yàlla. incha euh, allah yeneen jaar ce sera le lancement de mon de la dernière tournée de mon dernier album. incha allah incha allah you know, gonna be a double album, you know what I mean? yeah. And just where I really didn't chase just for people and for my friends and for my for my families and for my everybody, you know what I mean? en tout cas ñu ngi lay souhaiter. incha allah let me release album Oulel Obot mooy until end of time like jusqu'à la fin de temps album la album spirituel bu tudd. incha allah ah, incha allah ak beneen album bu tudd bi Legend you know what I mean completely incha allah ñëpp ñëpp ak kenn koo xam ne ngi hip hop bi te invité wu ma ku ñëwul rek mooy yëgoo sa bopp ci hip hop bi a acca baax na kon Bibson léegi on se donne rendez-vous demain dinañ la jël ci ki nga FM man dinaa la woowaat demain pour ci direct bi rapidement foofu nga wax ñu situation bi semaine prochaine ñu jàppaat suñu date vendredi prochain ñu lal suñu émission et puis nous on te souhaite une très bonne chance. <laughs> amoon bi <laughs> waaw euh, merci beaucoup. moom laa euh, doon Bibson ba demain incha allah. doon expliquer sànq jaajëf jaajëf jaajëf xewal xewal xewal xam nga dafa amoon benn tànganaa boo xam ni eh, kër Biba la waaw Biba moo doon jaay tànganaa bi ci buntu gàll bi Biba Arif waaw léegi tànganaa bi nag xam nga dafa génne euh, taabal bi teg teg meew yi teg mburu yi teg mayonnaise yeeg affaire yu demee noonu uh-huh. voilà xam nga moo tax ma ne la nu ne sommes pas décomplexés bien sûr loin de là dañu dund dañu dundu dañu dund jeunesse mhm. ci coono bu ne mhm. ak ci angle bu ne mhm. donc ñun pour déstabiliser ñu da ngay sa bopp dinañ ci ñëwaat tout de suite ñu dem ci sa exclusivité bi nga réservel suñu public bi tey suñu internautes yi ak suñu auditeur di leen fàttali ne yéen a ngi déglu rap wolof moo raw ah, tey on essaye d'écouter un petit peu monsieur Bill Diakhou qui est un témoin de toute cette époque ah, donc euh, boo leen dégloo bu baax ojo yi di ngeen xam ne il nous retrace un petit peu euh, fi ñu jóge ba yegg si fii nii tey ci 2018 ci rap wolof merci beaucoup Tam Katlan lii ñu ngi koy remercier Salim Kébé respect bil bil gaa yaa ngi apprécier bu baax ah, Baara Bay bëri na ñi nga xam ne ñu ngi enjoy instant yi. kontaan ci yéen ah, ah, cosaan. King FM. King FM. ay ca jóg leen bamba di bam bamba di bam tubaab bi fi bam bam bamba di bam bamba di bam tubaab bi fi bam bam mu samp Tuuba cent xamal li mooy bam bam mu samp Tuuba xamal li mooy bam <laughs> ko dem bureau ba ca Ndar xam ni maam nga doo maas yow kàbbar ga nga kàbbar ci kër gouverneur ab sëriñ du ko tollanti Bamba mooy góor Cheikh Bamba demoon nga bong ba dem la minaas ba mu ñëwee la galas di maye naas yow galas la nga def taax makka daa a aj nga àndaale kaa bëgg a fàllu daal daa yéem ñooy woy ak ñenu daan woy ca ndax baatil bii dafa rébb ci ay baax mu sax teggi waree fam di wax di wéeroo foo ko woote du yoon mu xëy la gàntoo ak këmam ku ko ut doo ko am si so daan kuy murit tiijaan xaadir ak laa yeen tëbal tëbal tëbal tëbal bi Gaza kii mooy Bamba dafay ca kaw exclusivité jóg jóg jóg jóg jóg jóg jóg ca kaw a kaw kooku mooy Bamba ah ah ah ah, ah. Bamba di Bamba Bamba di Bamba tubaab bi ne doo fi bam bam Bamba di Bamba Bamba di Bamba tubaab bi ne doo fi bam bam mu samp Touba 7 tonnes 500 xamal ni mooy mu samp Touba 7 tonnes 500 xamal ni mooy loxoy ci kaw a kaw a kaw a kaw kooku mooy Bamba ndigal rëkk day ci ndigal Ibra dafa way ci ndigal ci li gën a leer xam ni Bamba jëfi mën ci li gën a wóor Ibra Fall mu ne laa ilaha laa ilaha illallah Bamba ilah eh Baye Fall ci li gën a leer xam ni Bamba jëfi mën ci li gën a wóor wóor wóor boo bëggee doon murit da jébbalu di jéggalu gumba bu bamba wootee nga dem pëtëx lu waxaneel baaxi bi su bu jaarati la dahi la tamul la wala nga bokk sa jas suba doo am dara dara dara dara dara Cheikh Bamba ca kaw a kaw original bel jaxu kii bamba bamba jaw bamba jaw bamba partout bamba bamba bamba di bam bamba di bam cuba bi na do bam bamba di bam bamba di bam cuba bi na do bam mu samp tuba sept tonnes xamal ni mooy bam mu samp tuba sept tonnes xamal ni mooy bam bam waa kii mooy bamba bamba jogo jog King FM oh Cheikh Bamba Bamba Bamba Bamba bamba di bam ah tubaab bi ne doo fi bam ñëwal bamba di bam ah bamba di bam ah tubaab bi ne doo fi bam bam bam mu samp Touba sept tonnes cinq cent xamal ni mooy bam bam mu samp Touba sept tonnes cinq cent xamal ni mooy ñu fi kañoon bàkk leen ngir seen farlu ci yitte askan wi fii ñu toll ñoo raw ko kee ñabul gët sañut ñoo xool fa leen neex askan gee gi jooy ndax ñàkk wér gu yaram di fàkku limbal ak ñaan soxla leen tal ba tax ñu jagleel ma seen bataaxal Sénégal bàkk leen ngir seen farlu ci yitte askan wi fii ñu toll ñoo raw ko kee ñabul gët sañut ñoo xool fa leen askan gee gi jooy ndax ñàkk wér gu yaram di sàkku ndimbal ak ñaan soxla ku leen tal ba tax ñu jag leen ma seen bataaxal Sénégal kenn mënatul taxaw waxtu ndax mënatuñu sukkandiku ci seen kàttan askanum lëmb ku ci nekk am jàngoro booy soxaaleel daaguwaaleel boo feebaree nga di mag wala xaleel buñ la yenoo yóbbu l'hôpital yoon bi kenn du la ko xaleel ndax dañuy xaar nga génnee sa poos boo ko amul ñu sànnil si ay couloir tiim te os sànni la benn ordonnance bu fees de ak ay garab darab asparadara bala yow yëg si yow fekk ngay sukuraat te docteur yi at nekk yokka leen garaat seen poste gën a naat mën naa ko waat ci yàlla ambulance bu amee cas d'urgence tali bi kenn du ko xaalal ci yoon bi lay jaar ba yëg si malaat bi delluwaat di rang ngay gis docteur bu màgget war a dem retraite bàyyi seen keneen ku bees beneen borom xam-xam bu bees mu ne denn du fa jóg ba dañ ko fay bu dee puus roof fa benn tubaab muy opéré di jàng suñu yaram di faat ay bakan ba keroog muy man delluwaat réewam di leen fa jëriñ ku fi feebar dee na jóg leen seen bopp war na ca boole wér gu yaram euh, il est temps que l'Afrique se bay biyaa boo génnewul sa poos fi ngay tëdd day oos hôpital yi dañoo salté hôpital yi dañoo am meeru mbootaay sàggan fal ko muy seen buur weer bu dee kenn ay tuur teggi na ta am potub cuuraay faalew ñu malaati dëkkee waxtaan tàpp sante xaqataay boo daggee bala ñu laa faj nga jënd coton kol alcool am loo leen bokkal wala duñ la laal fees de lekk ay infirmière gune formation cuune ku ñu pikiir say cër yàqu say waajur di la ajaka aji di la gàddu sànq nañ sa life boo du réel doo bëgg dara lu dul dive massa ma massaale sa from the top impolissage from the top booy wasin buñ lay assisté di nga dégg lu ne ay puus puus maa ngi ko doon def dafa neexoon puus puus wala boo doon kuy nef buñ la ràññee ci l'hôpital bi dee nga bil jox ci FM au début right ci hôpital yi dañoo salté boo génnewul sa poos su ngay tëdd day oos hôpital yi dañoo salte salte ministère de la santé kenn kenn nanguwul jël boobu responsabilité kenn bugul kenn bugul ndax li fa nekk dëggawul fu ne ñu samp fa ay hôpital yu amul benn njëriñ ba jàkkee cëriñ ñi fa nekk di ay garçon de salle sol seen blouse yu wees léegoo seen tensiomètre dix wala neuf biir da ngi fees dell ay om niim risu sa jeñ digi jeñ ak goowe di la jox ngay naan doo fa naan allez vingt deux heures quarante huit minutes euh, mu nekkoon vraiment un très très très très grand plaisir d'avoir ce grand monsieur Ah, ok Bill Diakhou devant moi <laughs> euh, gis ngeen euh, un petit peu thème yi nga xamante ne moom lay aborder am na sens am na importance parce que euh, dëkk bi suñu dëkk la Sénégal suñu gaal kese ñoo ko moom di leen fàttali à partir de 23 heures précises fii c'est la 99 point 4 Ah, di ngeen am bien entendu ki nga xamante ne mooy Bill ah, ah, Seydina Omar ak seen émission Allo Voyance ce sera tout à de 23h un grand grand plaisir d'avoir reçu aujourd'hui ki nga xamante ne mooy Bill Diakhou on est désolé également pour euh, ki nga xamante ne mooy Daddy Bibson euh, malheureusement voilà euh, Bill peut-être un mot de la fin et puis la remercier ci invitation bi nga accepté ñëw je sais de t'avoir pour nga bouger wala génn ñëw ci li nga xamante ne mooy ay rajo télé. ça me touche beaucoup nga nangu tey ñëw. di la remercier yàlla na nga fi yàgg te wér. et puis di di la bàyyi nga wax ak auditeur yi ak loo xalaat ci émission bi tam. bon li ma xalaat ci émission bi mooy c'est super parce que man je croyais même pas que sax nii lay laay il y a beaucoup de monde qui sont venus nous voir et que c'est super man li gars yi maa ngi leen di bëggee ah di leen bëggee ñëpp <laughs> xam nga. Euh, bett na ma daal franchement. et uh-huh. euh, du du dara sax mais ça fait plaisir de faire une émission ak yow. au début ndax. man ak yow yàgg na depuis boobu xale lañ. effectivement di xamal gars yi nag auditeurs yi jàngkat yi nañ gën a góor góorlu di jàng Sénégal dafa war a am dootul kàngam yu ko yu ko ŋànk. Uh-huh. ñu góorgóorlu booy yi nekk ci université bi nañ jàng. Uh-huh. bu baax am ay xam-xam. voilà ñu bàyyi nag euh, système Molière bi ut beneen système. voilà di créer. di inventé mhm. voilà parce que mat nañ ko mën nañ ko mhm. doomu sénégalais yàlla am na lu mu def ci ñoom mhm. yaa ngi dégg yàlla na leen yàlla jàppale ñëpp amiin képp ku yeewoo bi sénégal yàlla na yàlla def si sa xol jàmm amiin yàlla na fi jàmm sax amiin ba pare di bëggee tamit euh, euh, euh, di bëggee ñi nga xam ni franchement ñu ngi ci kaso ba tëdd parce que kaso metti na lool lool lool lool lool voilà di leen bégee di xam ne rek voilà kenn kenn ku fa dugg ku ne ah. na gëm ni yàlla moom moo ko fa dugal voilà yàlla baax na jërëjëf sama gars yi incha allah euh, Bill rappeurs yi lan nga leen di rapide rapidement rappeurs yi lan nga di wax bu dee am na rappeur bu lay déglu peut-être euh, voilà nga koy sànni quoi li may sànni rappeurs yi rek moom mooy euh, gis nga dëgg du dee rap mooy musique gu dëgg mooy musique gu bi mhm. nañ continuer ci lancé bi mhm. continuer ci loolu gën a góorgóorlu mhm. Mm-hmm. jàpp suñu rap ak mm-hmm. suñu fukki loxo. incha allah ku ci am jot rap na rap. ku ci uh-huh. mën a dénoncé na dénoncé. incha allah xam ne dénoncé boobu dina baax ci suñuy rakk. Uh-huh. dina baax ci suñuy kër. Uh-huh. baax ci suñuy mag baax ci suñuy njiit. dina baax ci réew mi. très bien jërëjëf gars merci beaucoup vous l'avez bien compris c'était le grand Bill Diakhou euh, qui m'a fait cet honneur et ce plaisir tey ñëw teew fii mu ngi waroon nekk en face to face ak euh, Dali Bibson mais dégg ngeen ko Bibson s'est expliqué lui rapport ak euh, ni mu demee ba nga xamante ne on n'a pas pu la voir mais ce n'est que partie remise semaine prochaine euh, ci rap wolof vendredi 7 mars à euh, 7 décembre baal leen ma xam naa ne sonn bi la dinañ ko recevoir fii et puis ñu jéem a xoolaat un petit peu loolu en attendant retenez demain seen Sam Prestige voilà Sam Prestige à Thiès bien entendu aura lieu le grand concert de Daddy Bibson avec énormément d'invités à toutes les populations de Thiès képp koo xam ne bëgg nga Daddy Bibson nga nekk fansam ñu ngi lay invité nga dem ci concert boobu kontaan ñun ñu ngi leen di jox rendez-vous à Sorano théâtre Daniel Sorano ci raaya yooyu ñu nar a jox képp koo xam ne yaa ngi yëngatu ci wàllum culture urbaine à la technique aujourd'hui amoon ngeen Kader Lo moo assuré woon parti technique bi man Oli bi ma nekkoon ci microphone bi sélection bi ak everything et puis côté du digital c'est-à-dire émis euh, image yi ngeen gis euh, ci suñu streaming bi au www.kingfm.sn il s'appelle euh, Pape Jean kookoy général Sarmada Fall ñu koy remercier aussi bu baax a baax parce que c'est lui qui nous a donné ces très belles images merci beaucoup Papa Gueye ça plaisir vous étiez vraiment nombreux tey live bi awma seen fay gars yi da leen partager ngeen yokku et puis ñu continuer fësal li nga xamante ne mooy rap merci beaucoup Babacar Diakhoumpa euh, on se donne rendez-vous ce dimanche dina am benn invité bu bàyyeekoo fàtte naa ban dëkkati encore mais reggae lay def euh, donc dinañ ci waxtaan incha allah dimanche bii nii bu leen ko fàtte Gaza City première émission dancehall Sénégal kooku mu ngi fii ci King FM 18h à 20h ce dimanche demain on se capte encore sur les ondes de King FM. Inch'Allah, à partir de 18h pour le Galsen Hip Hop Awards. Merci à tous, que Dieu vous protège. Vive le Sénégal, Sunugal, Big Up, ODB, a Hong Kong, forever, forever, forever, forever, forever. Flash photo wala flash drop, si daw xel amul par choc. Buñ ma naree xeex ne leen dañuy son, amu benn duut foog Denilson. Dafa junni i tëgg Madison, jaay benn bii tëgg Radisson. Wàcce game bi laaju gën a yéeg, ay coup de cœur tax ma gën a nekk. Kuy nooyee xaalis mën a dee banque, excès excès lànk bët yi tàq comme ku ne si guerre poésie bu sax gën a bind vers comme jobu Pablo jarul promo plata au plomo def lu am ci dafay blocus gën a servi taxaw no peace seddale raam comme grossis gem bi di daw te doo sip di def lu si blam du kiif kiif du raag di jibo foog bii fiis yàgg nañ tàngal ma gouverneur tëddee sa mère hôtel Cabana wax nañ sa contrat booy ono oh no sa bes gel ci hôtel bi ono oh moo deretu góor sama artère duma mës a def genou King FM yeah set ngay wër gis music gën duma chat dama dër gis music amul bàyyi indi justice music nigga rap jolof dafa tarxis music xametuñu